Se bom. t e bom, é? mbokku téléspectateurs di ñu siiw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax euh, su ngeen gisee te euh, teewaay bi xàmmee ràññee fii du Faye ràññee fii ordinateur déjà xam naa am na lu lu seen xel di euh, di dem mu mel ni bu yàggul ci émission boobu ñu ñu naan Bonjour Sport Albourakh bi Doudou Doudou Faye jaaroon fa Modou Faye ordinateur jaaroon fa mu amoon ay wax mu mel ni réeroo amul lañ la ñuy wax ñàkk ñàkk waxtaan am bi mu amee ay wax kii am nu mu waxee moom moom du du du du du fay am ni ko ni ko kii gisee di ordinateur mu xawoon a jur ay yenn wax ba ay plainte sax xawoon see euh, juddu waaye nag yàlla dogal ci ndimbalu président des des promoteurs muy muy euh, Ablaye Diop sum production yàlla dogal ñu ñu woote woon fi tey ngeen gis. du Doudou Faye en personne gis euh, ordinateur gis ñi ñi ñu àndal du fay ànd ak ay mbokkam ay staffam ordinateur ñëw ak ay staffam ak ay mbokkam vraiment ñu waxtaan fi mu mel ni ku ci nekk rek nee nga njuumte du du du ñàkk waaye ñoom naan ñëpp nangu nañ ne vraiment bu fekkee da dañoo juumit vraiment ñu ñu balante ak mu nekk loo xam ne nit ñëpp ko euh, rafetlu làmb moo moo am moo amati ndam rawatina nag làmb bi bi dóor kon nag. du du leen du ñu yàgg da da leen jox rek jox ki ki nga xam ne moom mooy Ablaye Diop mi nga xam ne moom moom moo sooke mbir yi mu daal di wax estafu euh, euh, ñaari euh, ordinateur ak Doudou Faye ku nekk wax ñu jeexale si ñu jox Doudou Faye jeexale ci ordinateur. Eh, merci beaucoup Abou eh, ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin dolliwaat ne alhamdulilahi rabbil alamin eh, di leen sant bu baax di sant ñi fi teew ñëpp eh, di jaajeufal ñep aussi eh, bala ma ci sori rek ma bugg ci sant aussi un grand monsieur muy lay ti seenu belo ngi ci ndax bi xew-xew bi jibee bi ma demee ba amo fen fenn fu ma jublu moom laa njëkk contacté bi ma ci joggé ma waxtaan ci ak basirou sar sum suñu ñu aussi samay kilifa lañ ci li ñuy yëngatu nii eh, ñoom tamit ñu booleem ak koo xamante ne li yàlla xam doy na li taxoon ñu booleem ak moom ricuma ci dara muy grand Mahfous moom tamit def na ci acte bu yaatu sax macha allah eh, su ma ci jógee eh, ordinateur maa ngi koy sant di ko gërëm ndax bi xew-xew bi jibee am na lu ma ko ci ñaanoon may na ma ko ba fi ñu toll nii tey ba ni ni nii ku ne xam nga ne heure bi ñu nek ni heure entraînement la kon bu be dag yi tém yépp fekk suñu ci wote gi ndax jamm rek ñëwaat bobu considération mënuñ ko ko fay di ñaanal nak lepp lu muy sakku ci lamb ji yalla may ko ci lu koy njortam tam allah li ñuy xaar ci mom ñun ak lu séeréer defal ko ko eh, nak ci fay ndax xëy na cër la rek mais kilifa la te man mii ko doon sàkku ba mu wuyu si mot na ma kilifa bu ñoboowul rek ci ay at mais nag gën naa firnde lu bari luñ doon waxtaanee tey muy cër bu ma cëralee di ko jaajëfal di ko masawaat bu baax ci coono yi vraiment di ko masawu ay mbokkam di masawu ordinateur di ko masawu staff bi yëpp di am kontante bu baax abou tay li ne sama xol yëpp munatu mako wax ndax dama ci sante yalla rek nañ doli sante yalla jere ngeen def yeen tamit sha allah. Eh, Assalamualaikum bolo bi Gabriel Senghor laa tudu dekk ngeñan yalla def ma don andak eh, ndem ci yalla malik ngeñan diko ñaanal yalla yalla nako yalla di ñaanal ñëpp jàmm nag toogaay gi it ma am ci mbégte bu rëy a rëy parce que di toogaay goo xam ne xëy na ñun ñi toog mun nañ ko xeeb mais lu am solo la lu am njëriñ la boo xoolee ci mag yu njëkk yi dañ doon naan kër jaraaf maanaam chef de village mooy lii parce que xëy na toogaay bi bu amut woon feneen lañuy jëm te bu boba ñun ñi tok duñ ko fekke mbolo mi tok fi tay sédé ko duñ ko fekke bon nak buñ ñu beli am nañ ci sant suñu borom bu baaxa baax lima ci yok moy ñun ñëpp nañ gor lu wat bala ma dem ci Modou fay nak di dul fay lay njëkke parce que mom sama lepp la ñu and defando lepp maag mom be bes gi tay xeyna luma mëna soxla muy lu mu war a dox xanaa mu nekk dëgg ci dugg ci noppam mais saa yu duggee ci noppam wóor na ma lu ci war a taxaw yëpp na ko taxaw taxaw ma fi it ndax mbokk damaa taxaw ndax dund làmb di dundal làmb muy loo xam ne man gëw ma beneen sport bu dul làmb bon nag waa làmb bu ñu wootee rek naa mun war naa faa mun a toog Doudou fay njiit eh, yombut xëy na nag yàgg nga ci lii mosta am olof njaay nak neena njum te jombul jam yalla rek adul dul bon nak amna lo xamne ne bu ñewé ñun ñepp nañ ko nangu nangu ndogal yalla la ma joggé fofu nak ma dem ci Modou fay waxna ci mom léegi ma doon wax be sama xol sax dafa xawa toy parce que man mu waxé ci lamb rek day sori ci man ma bëgg nga gor lu wat yak say staff gis nga nit amna lo xamne ne gis nga bu ñewé tek garab la day faj lu bari tok deglu holat sa ginaaw seug wax ji mais gis nga li bu doon man ni nga wara def bu duggé ci wax rek am lu mu yaq nga bay ci xel bu baax baax yow do simple Modou Faye ñaaxar de Modou fay international nga lolou da ci wara bay xel bu baax baax référence nga yow université ga ku fi wax lamb te waxul ak nga xamne borom xeyna da am xelam dem monument nga te bu ko xeebal sa bopp mukk yéen waa ginnaawam it bu leen xeeb loolu mukk te bu leen ko fàtte dee leen ci bàyyi xel bu baax a baax am loo xam bu jibee rek toog leen ngeen sëgg bu jaree wax ngeen wax ci xam noo leen di waxee bu jarul wax on laisse tomber ngeen jàll ci leneen ngeen baal ma asalaamaaleykum mbooloo ngi baalu àq nag ñu ngi baalu àq te xam ne toogaay bi yàgg na te ñun ñëpp xam nañ ne dagaar moom liggéey koo gis boo xëyee rek sa yitte mooy liggéey mais dañoo dàgg suñu soxla ñun ñëpp ngir li xew ci làmb li xew ci làmb nag ñun ñëpp ay séeréer lañ ak ñi yëngatu ci làmb bu xewee mu am ay kilifa yu ne suñu biir xool xam ne warta jëm kanam dañ ko war a teel a dakk ah ñi jóg ku mel ni président des promoteurs Ablaye Diop wax ceeg ay kilifa Ablaye Diop interpellé ma en tant que président association CRR Refum ma yor ñaari étiquette doon lien ci mbër mi am ci lien aussi doon acteur ci làmb ji kon rafet nañu taxaw ci taxawaay bu ñuy war ndax loolu fañ ko waxe mu yem foofu te yàlla jàppale nañu ba yem na foofu parce que trouvé nañu consensus waxtaan nañ juboo nañ déggoo nañ ordinateur rakku Doudou fay la Doudou fay magu ordinateur la ku nekk ci ñoom reconnaître na ko ba fi ñu toog nii koo ci gis ci ñun sa xol dafa sedd guy ñoom grand Abdou Waxal ak aadama euh, fay ak ak aadama Diouf ñoom ñëpp dañoo dàgg seen liggéey uniquement pour teewee waxtaan bi en tout cas waa askanu làmb ñu ngi leen di xamal na ñi ñuy déglu di ñu seetaan wax ji jeex na tey ñu jublu ci leneen xam ne wax ji jeex na du fay jàppalatul euh, saa seem ngeen ñaan dara SACEM ngeen ñaan jàppalatul moo du fay dara loolu damay jàllale communication bi pour ñi nga xamante ñoo ñuy déglu pour wax ji jeex tey man nag loolu rek laa ci bëggoon wax yàlla nañu yàlla dolli sutura te ñu fekkee déwén te ko moo du fay nag ngeen jàppale ko ci ay combat képp ku ci mën dara rek jàpp ci parce que moom lañu am présentement moom la ñu am donc jàppale leen ko ci combat ay combat sax moo du fay instant yi tey ñu ngi tàllal ñëpp promoteurs yi ku ci mën dara rek interpellel koo mën a interpeller ci ñun ñii ngeen jàppale moo du Faye ci combat loolu rek la ñuy ñaan année bi bari na cee mën a bëri ay trois combats loolu du problème ci moom parce que kuy compétir. te benn guddi. kuy compétir ay cinq six combats ba sept combats ci benn guddi jël làmb ja jàll ci beneen làmb am fa sept combats donc muy quatorze combats kooku tey pour nga competir ci at bi combat bëre de trois ou quatre ba cinq defu ko muy dara jox leen ko ci avance yi na téye trois avance quatre avance mën na ko mën a téye te na mbooloo Modou Faye am na ginnaaw am na kilifa. gis nga saa yoo ko tëggalee làmb da ngay gis stade bi day fees del moo du Faye international la présentement amatul lu muy prouvé ci làmb jàppale leen ko nag loolu rek tàllal la leen loxo ngeen jàppale ko ci ay combat jërëjëf salaamaaleykum askanu làmb salaamaaleykum waa Sénégal di rafet lu jotaay bi rek di nuyu ñi nga xam ne ñoo bàyyi seen yitte ñëw pour njëriñu làmb di nuyu tamit euh, di gërëm président Ablaye Diop dafa wax lu am solo parce que ñi bëkku ñu teen yaakaar naa ñooy laxasoo ay gocc la ko olof di waxe xaw ma te gis nga moo du fay ordinateur sama doom baay la fay la sant ma sant fay eh, moo du fay yàlla rek laay waxal bu ma sañoon mu dëgg roi des arènes ci làmp gis nga nag eh, ñun ñi nga xam ne ñooy nekk ci penc yi

di lijjante kon lamb de ko wara fay Ousmane dour mën na ma jël comme témoin makoy wax di kaas ci wa CNG kon nag njuumte nak du ñàkk njuumte du ñak xeyna wax dafa métti bo nekké ci lamb lu mat ñaar fukki at di ci liggéey te juumoo ben yoon ba wax lo xamante ni xeyna mën na laal kenn nga xamné sa liggéey dafa dess ñun nak lamb lañuy liggéeyal lamb lañuy liggéeyal suba lamb lañuy ñuy liggéeyal suba gis nga bés niki tay ci la ñuy gën a takku takk suñu ndiggi di liggéeyal làmb waxu ginnaaw nag ak waxu wax yu nit ñi di wax kooku du tee ñu liggéey làmb liggéeyal làmb jàppale làmb parce que nag ñii lañ am comme suñuy rakk te ñii làmb moo leen di jëriñ kon nag lépp lu ci waay man pour gis promoteur yi ñu tegal leen combat euh, nang ko def te ñu ñii dinañ ci am ay jéego def ko maa ngi ñaan nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe yi Euh, nañu xam ne ñun muy ci duud fey muy ci ordinateur ordi dafa am ñu bëri ñu koy bége man bëréewu ma dama am ñu bëri ñu may bége lu ma wax ci ordinateur mu métti ay nitam lu ordinateur wax ci man mu métti samay nit mais man dama koy gérer parce que damay liggéey ordi tamit dina ko gérer parce que ci milieu bi mu nekk la kon nag ordi euh, yaa xam li nga bëgg nag yaa ngi ci yoon yaa ngi ci làmb te nag yal na la lamb fay la nga bëgg ci yalla na yalla def lepp luñu man ci lamb pour nga am combat du lolu ngay wax combat ngay wax bu soobee Sëriñ touba mi ñu def pour nga am combat di nga am combat bu soobee suñu borom duñu tok duñu tok ba saison bi yëgg janvier te te lalo avance parce que am na ñoo dafa am Yalla bolé na ñoo xamné xeyna mën nañ leen wax ne tegalal Gabriel combat ñu tegal leen combat parce que seq nañ loo xamante ne nii ci zahir la ak ci batin kon nag suñu nit bu ñu jegesee nañu lii la bëgg dañ cee war a jàpp kon ordi wax jaa ngi noonu nag métti na torop nag ci yow métti na torop ci man mais dëgg-dëgg làmb la rek kon nag li des ci saison bi yàlla na ko def ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin benn ndog bañ laa jàpp ci làmb ngeen baal ma nag kontaan naa nag ci ñëpp am na ñoo xam ne waroon naa leen cité ñuy ay kilifa Basirou saar da cee dox di ci wax maam Kor Baaxum da cee dox di ci wax ak sama booy yi nga xam ne bu lii amee ba tey dañu may woo di wax mais nee naa leen sama diggante ak ordinateur ak lépp lu ma ordinateur mun a wax billaahi wallaahi wa tallaahi pare naa pour gérer ko parce que damay liggéey pour seen avenir kon boy liggéey ci avenir ay xalé xalé yi dinañ juum ba offensé la mais xalé yi duñ la offensé ngay attaquer xalé yooyu ci offense bobu kon ordi vraiment euh, maa ngi len di djegalu yeen ñi nga xamne ne yéen a waroon dem entraînement nak parce que tay saison bi ubbi na ni waroon na leena fekk ngeen di contact ñu téye leen fii kon ñoo ngi leen di djegalu yeen ñi nga xamne ne yéen ak ordinateur gis nañ taxaway bi surtout président Mahfouz nak taxaway bi rafet na parce que bi ngeen ñëwee ba tey da ngeen di defar ñii nga xam samay mbokk lañ ñoom Ismaïla ñoom malik ñoom Sombel samay xarit lañ Abdou Adama ngi nii du yàq dara kon nak vraiment rafet nañ rafetlu nañ teewaay bi ngeen baal ma nag ndax wax ji moom li duuf ci cin bi yëpp xejul xejul ci kii bi daal ngeen baal ma ino mbasnuwa fop we ngatna meen so we ngateerna meen fop ino mbasnuwa seereer ke fop aussi den ndef wiin we na topaa ci'es fo we ndefna a ciiñ duudu fop in way fop xaq rek euh, mbaasana fop it aussi xaq i comme ne ta lay teena koy fa lay moom a jeganga a layange rek ne ta wareena lay ta faganga a faga quoi a faga côté es to aussi me xeɗa yit oxu farna nam rek ta fagna wo euh, fo mu waagoona fod na adna fe rek ta fagna wo quoi i suuroyo no lakas i euh, ndigil o in fop leŋ i ndefu i ka ku fadidna koy rek ka laytel ne ta wareena layit a ñaƴtel naaga a suuranga i suur no lakas waasnuwa seereer fop joka fop a njal waaw lépp lu nekkoon si man jeex na bàyyi naa ko quoi ba koy baalu ax di ko baal bu baax a baax moom duudu di ñaan jàmm si réew mi ñu bokk ñun ñëpp